daal ci réew mu war a ñëwaat. waaw. lenn la loo xam ne daal lamin fu mu toll nii moom a ah. moom dana tàmbale ci affaire mbër yi lay dugg. gis naa benn gox. gox ah, waaw boo xam ne ñaari leader ba ñett ay leader yu bëri amoon nañ fa. jafe-jafe dina am ci ay mbër. ñaari mbër seen cas yi te buñ moytuwul. waaw dana laal ñaari mbër yi te lu koy waral benn komba komba buy am. jaxasoo jaxasoo am ci leader yi ak nit ñoo xam ne wax yi dina bëri ba laal ñaari mbër yi ba ñaari mbër yi di am tuuti jafe-jafe yu ñuy am. maar il faut du nag rayante wala dara mais euh, maanaam jafe ci wàllu rek ànd boo xam ne amoon na leen naan gis ñuy gis ñenn ñi te doon suy gisati kenn ki. waxati naa nag. Uh-huh. boo xam ne dañ gis mbër moo xam ne chaque jour dañu naan gis muy ànd ak nit bëri am. dootun ko gis kaw kaw benen camp bi ak benn camp nekk ci benn gox gox bi dem ba ci biir mbir am fa ba mbir amé moy mbeur bi ñu beurek benn mbeur bi beneen camp benen mbeur bi di wax wax ci xawa am tuti lënt lënt ba ay mbir di ci feñ ba ñaari mbër yi di féewloo tuuti mak mo leen di jubale hmm. magu mbeur mo leen di jubale waye nañ ci teey ñu def ci ndank parce que lolu da nga am te lolu japp leen bind leen lolu dinañ ko bind. bind leen bu fekkee boo ñaa yow gor nga. dëretu pikin mooy dal say mooy mooy daw si yow. non boo ñaa barki alxuraani karim doo jël doo jël. mosuma taxaw na nañ ma jox Modou ma bëri ak moom. waa yàlla rek moom ko indi ma war a bëri ak moom. combat boo ñaa du yàqu Ama di ko bëree. estafu Ama ñoo toog ñu toog ñu génne leen Sénégal gépp leen teg bët ñu ne boo ñaa suñu frère la Ama Balde libéré na boo ñaa pour mu jël combat bi dem ci la. comme dem na ba xelam def na ko si bëre bi def ba bëre bo bo Modou na bëre Modou Lo ñun Pikine lañu dëkk en tout cas li ma la mën a ba assurer lako moy mooy bu ama nekkoon place bo ñaan du def xoro gu moko quoi mm-hmm. instant bi Boy na taxawé neutre rek après aussi ñun li dugg bala ñu dugg dara dañuy waxtaan ak magu Pikine yépp parce que Pikine ñu ñëpp ñoko bok wo ñu ah fekké yow Pikine waxtaan nañ du ñu kon magu Pikine man bokuma ci te Zil Baldé ne moom yëgut loolu man loolu damay jaaxal. bu ñu taxawee naan Pikine waa nangam ak nangam ak nangam te Pikine am lu ñuul ci suuf dañuy moytante. non man nag kenn dëggal woowu ma waxtaanul waxtaanul waxataanul la man. loolu man mënu ma cee sonn. donc li ma amee yéene pour am lu bari ci làmb noonu laa ko amee yéene mu am ko yàlla xam na ko. parce que da nga ne ama ama ama sa deret la ama doomu Pikine la da nga dëkk Pikine ama dëkk Pikine ñun ñëpp ñu dëkk Pikine kon couleur Pikine la ñuy la ñuy la ñuy. loolu amul benn Pikine waa bu ci d'accord. Wagnabou combat bi nangam sangam wiki man ànduma ci ndax parce que Ama ci bopam mom barki Serigne Bamba Ama kep ko xamantene yow dang ko wara yeureum xolal xolal way waaye non gaan nit day nit day nit tamit day goré quoi. bu Ama ne ko baña bu jël combat bu jël combat mun na mun na doon ñu Ama da ko soxoré du tapalé du wor. ngay ngi wax ay barki Serigne Touba mbake donc luñu am rek dañ koy yobul suñu waajur ak gaay yi ànd ak ñun kër nga bëgg a yóbbu boo amee mais Ama. di génne drapeau Pikine ngay génne donc nag du ñu nangu mu ko drapeau Pikine mu suux wala mu arrière wala mu dellu ginnaaw. man Pikine laa fi nekkal Pikine moo Je ñor lu Pikine ñoruma lu Pikine moo ñorul booy ñaa bañu ko barke alxuraani kat. Ah, war wax day leer nga wax boo Je ragalee du neex de day leer. parce que loolu bu amee Pikine dina xaw a yëngu quoi. réew bi ba rek Je ba combat boole leen ba ndok ndok am fi bum mu si ñaaw bu ko jël bu ko jëlé pikin pour buy lèr ku jël roi des arènes ama yow lay bëreel. kana sa sog mo ngi dox bir pikin am na ñoo xamante ne dañ la way bo ñaan supporter bo supporter bo ñaay sa lay wax fii biir ak supporter ama moom mo fi am. loolu dafay am fi am na fi. supporter bo ñaan supporter am na fii du ma dara pikin am na fi. duma bëggoon sax mu nekk lo xamanteni à partir bu ñu ci waxee tey rek ñu close loolu daal parce que am loo xam ne jaruñu ci communiquer chaque jour. ku jël roi des arènes ama yow lay bëreel.